muy Alioune Badara Cissé nekkoon médiateur de la république def lu am solo ci li nga xam te ni mooy ci wàllu politique ku ne xam na ni nekkoon na fi ministre affaires étrangères doon ci liggéey tamit lu am solo ñu gis tamit relation bi nga xam te amoon na ko digganteem ak son excellence monsieur le président Macky Sall tey kooku kooku di Alioune Badara Cissé moo fi bàyyi ko ci anam bu neex suñu borom ku ne xam ne nag xaw na tëdd feebar ab diir lu xaw a yàgg. waaye suñu borom mi dara tawul jël na ko ci li nga xamante ni mooy ci coobaram ak ci ni mu ko bëggee kon ñu ngi koy jàlle képp ko xamante bi rek yaa ngi ci milieu politique rawatina nga nekk APR di jël njaal bi ak njëbal yëpp di ko teg ci loxo son excellence monsieur le président Macky Sall di Grand Théâtre TV fas lañ ko toppal lépp lu ci xew ak lépp lu furuse rek ñu jox suñu internet yi nga xam te ñoo ñu ñuy siif ñu bàyyi xel di leen wax dara du leen fa ëmb ci kàttanu yàlla you